ñaten teng ha woyen juso ku yandi man di eh, sampulo me yitandi na be dulata dame man ku mo soto ser kunu kunu motan ani woro ngolo bondi katiro la fara kilim ma banno ni mano motan ni woro kunu fara kilim fa ma banno anda kato diata wala nyam ha yake dawo da sibete yaji hmm. Eh, ya wanu kanoli ah kompine nu kanoli mo wanu kanoli a kompinenu kanoli kompinenu kanoli mina puri mantalindi nopu manju matiko kafa oyo iya a kompinenu kanoli mu kompinenu kanoli mina puri ngansaro nopan manju matiko kafa oyo iya a kompinenu kanoli mu léegi ñu ngi fii nii Saaro won na li nga ko ooyee tooli président bi ñu am fi jigéen ñu nga xam ne ñoo liggéeyal président bi tey maalom bi fii nii ah, ñu wax ñoom ñu bari wax ak staff sergent ah, Sakho bu xam ne moo fi jiite te ñu am fi na tudda man Ousseyn Diallo waaw ah, jamtum <laughs> dégg naa tudd anyway jaama rek moo fi nekk ñu ngi ñëw pour dog maalo bi parce que man maa ngi waxee in behalf of the Sarah Women Association. maa ngi waaw man maay seen secrétaire bi so suñ jigéen ñi si passe moon si leneen le maalo bi nii fii ba si gannaaw bridge bi fële seen maalo bi la ñoom ñoo ko indi ñoo ko buddi in two days ñëw liggéey ko bu tulo local name bi ñu ne am na Fature am na Fay Jame Mano moom moo fi nekka they are very hard working women ñoom ñoo ji woon maalo bi maalo bi yëpp in fact ñoom xob ñoom ñoo ko indi woon fii nii so ñu ngi leen di ñaanal ñoom itamit si doole bi ñu ko def yal na leen yàlla fay góob tey naka nga gisee loolu foog naa tey soo ko nga kontaan. kontaan nañ trop because ñu ngi koo def yëpp kontaante bi kontaan bi bari na ñu ngi góob maalo bi te ñu ngi koo ñu liggéey bi ñu ko def si xol bi seet daal ba ko def si turi suñ président bi moo ñëw jaral lu nekk moo ñu jaral lii ba pare ko gërëm di ko sant di gërëm Sakho moom tamit he is a very hard working man ba pare he is very kind to the women suñ fi ñëwee he is very um, he is very lenient to am benn coono duñ am benn jafe-jafe mu ngi daw mu ngi sona pour ñun ñu ko ñaanal yàlla yokk place am bi ku am ité la ku am respect la pour jigen yi. gis nañ maalo bi tamit ne fonna xorom bi daf ko sonal bena side spécial si digga bi comme léegi next time lan ngeen bëgg a am fi. wa ñom ñom ñom xam nañ fi bu baax because ñom wax nañ ne next year dinañ dégloo maire bi wax na la ko mu ne la next year dinañ fi liggéey bukan nañu liggéey fi nga xam ne xorom bi li fi na fa dinañ nekk dinañ fa def garab bi bel bi foo mu ja ñom xawma ma leneen waaye malo bi malo liggéey ja jaaxalul len fokk na gisoon nga len da silamé they did wonders there fuñ dem rek ñom li la waaw ñom gis nga starting from the checkpoint fini besi ba si oyesta bi sen malo ya fa neka so they are very hard working women ñu ngi vraiment di ngeen fi yàgg balaa ngeen balaa ngeen a jeexal ah, tey góor bi fana di ngeen fi yaga de parce que tol bi rëy na anyway ñu ngi fii ba o'clock ñu ngi fii ba o'clock su jeexu tamit dinañ ci dal benen bes ñu ñëwaat fini, nii parce que president bi mom lu nekk lañu jëral te su fekkone lampe dafa amone sax dinañ fi nekk be guddi as sar is the Saro Women Association wow. travel on heading to Dasalame, the very special place that stirred the appeal made by His Excellency the President, Sir Professor Lai Dr. highlighting the scare this 40-hectare field has triggered recently. By this visit, a good portion of the farm was already harvested, but this was not certainly the end. The volunteers have been led to other areas further afield. We join here the farm manager, Bakari Sane, also known as Jalang. is a brief stop. I'm just showing you the extent of the farm. If you see the people, have, uh, we have already walked now for more than 10 minutes or so, 5, 10 minutes. Yeah. Okay, that's where we stop. That's the entrance of the farm. I have here with me Jalan Sane. He's a farm manager, for farm, and this farm is also cultivated under mm -hmm. your brand. Yeah. What, how, how, how, how big is this, is, is this farm? Uh, thank you very much. I can say uh, this year is the year that I have cultivated uh, the most biggest area. This is 40 hectares. That's land. Dasilame. yes. Okay, look at the extent. From, where, from where we stopped yeah. and the distance we are walking to. I think that's another portion that you want to take the people for the harvesting. Yeah, in fact, that's the portion that I want people to help me harvest. I wish you go and see the area. Okay, then this entire area, if my cameraman can zoom zoom here a bit, this entire area has been harvested. Has been harvested, yeah. This was almost a two days harvest and almost 500 people were here. That was a week before the Ramadan. It is equally good as where we are going no, it's, it's, it's, it's, my ear. How long have the people been coming here? I mean, the farm is just so vast. Yeah. I cannot imagine that they have been here for two weeks or so. It's more than that. It's more than that. It's more than that. I think this is, the, is going to be the fifth harvest on this farm. Today is going to be the fifth harvest, and today cannot finish it. Tomorrow cannot finish it, and maybe next week I have to plan people to come here. What I also noticed, I, I, have seen the divisions that you have made, the, the, the, the plots that you have created, Nereka 4, Nereka that, Nerika, that. That was also your idea? It's my idea, yeah. because sometimes I just want to know which Nereka will perform well, because we have different types of Nerekas. So we are also told that if you cultivate them at the same time, they may mature at the same time, and maybe when you have that problem of harvesting, it may spoil. Even, even, even in spite of the varieties of the, of, of, of, the, of the crops, they can, they can mature at the same time? Yes maybe maybe it can, it can, it can, the, the variety period can be can vary but then because of the the area how big the area is so that's why we decided to at least bring about four types of narikas so that they uh, mature on you have narika 1 narika 4 wab 5650 and then we have uh, so we, divided. we divided yes we have narika 1 narika 4 uh, 5650 atm and narika koyo i think five varieties we have them here Ah, mbokka yi ñoo silaan egsi neen fii foog naa ne si beginning bi waxoon naa ne tool bee fa rëy ah, ñu jëloon nit yi rek di doxaa ñoom dox neen foog naa ba ten minutes ten minutes balaa ñu egsi fii disposition maa ngi fi amee léegi jalang jalang ay teed ay believe ne wax nañ ko in English waaye danga ma loon wax wanoon nga ma fan leen góob nga dem ak tool bi ñaata hectare la ah.